rabbi xfir lii wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bégalal wi xeet ci ak yëkkatiku ak dal ci dëkk yi ak ndimbal ak ci diine xadiis bi abu daawud moo ko génne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bassir hadihi al ummata bissanaa'i wattamkiini fi lbilaad wannadri warrifaati fi ddiin axrajahu abu daawud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 téeméeri kilomètre dina yokkal benn simili jant bi dana fenk juróom-ñaari waxtu wu tegal fanweeri simili ak benn yu toftal fanweeri saa di so juróom-ñaari waxtu wu tegal juróom-ñaari simili yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin